baax ñi topp ci Leewtoo TV di am contentement di jënd yéen chaque jour nee naa heure ma toogee fii rek mbégte lay am bu baax a baax waaye mbégte lay am su ma toogee sama mag yi di Mbaye Babacar ngeen ñu àndandoo indi leen di gën a fës ci xibaaru làmb noonu laay def daal di koy nuyu ñëw jukki leen di gën a fës Mbaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf ajaratu nday Mbacke Diop maa lay ziar di kontaan ci yow. di la ñaanal jàmm ak salaam maay gën a am mbégte heure bu ma dendandoo ak yow ñu fas yéene jukki li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne ci làmb rek la ñuy bind jaajëfal nañ ñi ñuy topp saa su ne cant ak ngërëm ñel na waaye cant ak ngërëm ñel na ki nga xam te ne mooy Eau Kayar ndox bi gën ci ndox yi baax sell neex sedd neex bu tàngee neex. ñu mm. càmbar ko càmbaraat ko. jaar la ko ci ay jumtukaay yu mucc ayib Mbaye Babacar au Kayar mooy eau ñuy aar ma ci topp. mooy ndox mi ñuy aar ka ci topp moom mooy huile Jador nga xamante ni bii Abdou Aziz Alé Ndiaye Al Amin moom moo ko jiitee andi ko fii ci euh, Sénégal huile Jador nag di diwlin ba nga xamante ne bii comme ni nga koy waxee chaque jour. moo gën ci diwlin yi jigéen ñi xam na ne huile Jador moo gën ci diwlin yi wante Jador yemul foofu am na li nga xamante ne bii mooy macaroni Jador am na spaghetti Jador ñu ne déet ñu indi attaay Zador mi ngi noonu kon daal Zador mën nañ wax ne ay produit mi ngi ci biir marché bi daw leen ngeen wuti ko ndax mooy produit yi nga xamante ne bii ku jàppanteeg ñoom sa waañ day neex. te doo ko sa àllaaji day kontaan. da moo damay kontaan rek de saraax ci journal suñu lamb comme xëyee ci xëtam mu njëkk nag mooy Bombardier la B52 de Mbour ak forme étincelante ba mu yor confiance ak assurance maanaam Bombardier plus dangereux que jamais Mbaye Babacar. Bombardier journal bi ne li mu gis ci moom mooy que. forme ba nga xamante ne bii macha allah baax na gis na ci moom li nga xamante ne bii moom mooy confiance gis na ci moom li nga xamante ne bii moom mooy assurance bu wóor bu mat sëkk ndax taxawaayam ci làmb day wone loolu heure bu taxawee ci làmb moom arbitre day souffle rek mu dox ci sa kaw ba tey nee na tamit comme ñu nara gis combat ba nga xamante ne bii combat bu nar neex la diggante Bombardier ak euh, B52 de Guédiawaye war a am incha allah le 31 juillet. kooku BG2 la bu mu bëggee B52. kon BG2 kon B52 moo nekk Mbour. jeex na ak 2 B52 bi ñu xool fa la moo nekk di mujj gëtam ah. ayca ca doon nag grille de expédié Abdou Diouf en 41 secondes la journal wax nag nee doo doole doxul jàmm waaye record la mu koy waxal nee na grille de chasse les larmes de Gris Bordeaux maanaam feral na ay rongoñu magam. su ko defee def na la nga xamante ne bii loolu la war a def ndax ku daan sa mag. boo ñëwee da ngaa war a taxaw dëggal sa bopp daan ko bi ñu demee open press ba bi ma ko laajee na ko est-ce que combat bi nekkul pression ci yow du diis ci yow ndax ak Abdou juuf li mu daan sama boo bokkal ndey ak bàyyi muy Gris Bordeaux mu ne du diis ci man ndax incha allah damay daan ak du Diouf fay bor bi ndax Gris Bordeaux defal na ko Tafa Gueye ci ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier ba mu daanee Tafa Gueye Gris Bordeaux ba mu ñëwee jàpp Bombardier da koo daan kon nag mën nañu wax ne Gris 2 la mu waxoon def na ko wane na ne doole doxul jàmm mu nekkoon combat ba nga xamante ne bii tamit fële la amee woon ca arène nationale nekkoon combat bu neex li nga xam ne moom li ñu waxoon Gris 2 loolu la def ñëw jël ay responsabilités am dox ci kaw Abdou Diouf mayu ko fu mu yëkkeem nàkkam daan ko jël bu gaaw. mu noonu nag journée jéey jéey production la moo tegoon làmb jooju beneen combat ba doon am def samedi kii di général bu Fass déclaré vainqueur de Coly Faye une décision. arbitral mais contesté mu mel ne làmb jooju boo ko arbitré joxee victoire bi rek dafa bëri ay coow mbay baaw ko ñu naan am na ñu naan amul. ñi nangu ñi bañ. waaw loolu nag moo coow ànd mais combat bu yàgg la bëri nañ fanweeri simili 30 minutes la ñu bëre ñoom ñaar ñoom ñaar dañoo bëre daanaka ba ba lang dañoo bëre ba sonn. li ko waral mooy diire bi ñu bëree moom moo yàgg diggante li Faye ak général bu Faas mu nekkoon combat ba nga xamante ne bii tamit amateurs yi ñu ngi ko doon xaar ndax ñoom ñaar dañoo am yoonu làmb ba nga xam ne yoonu làmb bu leer la am fa site ba nga xamante ne bii nañ day mbàkkee comme ni ko amateurs yi gisee euh, doyoon na waar trop mais arbit li mu préféré woon mooy ñoom ñaar oowaat leen ñu bëri gannaaw ba leen oowaatee ñu bëri ñu bëri nag ba daanaka temps bi jeex tàkk ci la ñu jël victoire bi jox ko ki nga xamante ne bii moom mooy général bu Fass loolu andi woon na li ko waxee andi woon na li nga xam ne moom mooy ay. contestation yu bari ñii nangu nañu ñii nanguwuñu wante loolu mook làmb ñoo ànd euh, li nag mën nañu wax ne bokk ci combat yi nga xamante ni bii écurie Ndakaaru ñu ngi ko doon xaar di ko bàyyi xel li ñu mën a jàpp mooy Ndeye Mbacke écurie Fass Ndakaaru fan yi ñu ngi ci dynamique bu baax gannaaw ba ñu génnee seen première sortie seen première sortie ñetti xale doon bëre ñett ñoom ñett ñoom ñett ñëpp ñu am victoire weekend bi passé samedi beeg dimanche bi Gris 2 bëri na général bëri na ñoom ñaar ñëpp ñu amaat ndam mu mel ni mbooloo daal. mooy doole mooy te noonu nag combat entre jeune ak vieux Double Tyson Baye Mandione sëlee parce que nga xam ne Ibou Kayta Mbaye Babacar. Kaolack ndangaan la dëkk moo jiite ndar bu ndaw production moom euh, Ibou Kayta di promoteur ba nga xamante ne bii foofu la bëgg a tëggee boobu combat bu nar a ci diggante Double Tyson di champion foofu ci Kaolack ndangaan war a bëre ak ki nga xamante ne bii Baye Baye Mandione mi nga xam ne. def na lu bari ci làmb ba pare nekk ci buntu retraité nag fi mu toll nii euh, moo tax muy nangoo jox xale yu bari sens euh, foofu loolu nara a amee ci Kaolack ndangaan wante bul fàtte bàyyi ma Mandione mu ngi ci beneen contrat ba nga xam ne digganteem la ak jama jamaïcain ñu naan ko jam production mu war cee jàkkaarloo ak xoyantaan. xoyantaan waa Gambie ci noonu nag postoni par ses collègues promoteurs Sambay Fall démission mu mel ni ginnaaw ba mu tëggee làmb gisul benn mbok promoteur am ka jiite ba mu ñëwee cuucap la daal di dem. promoteur wala Samba Faye Mbaye Babacar daan mel fottu daal di génn ci association nationale la yëkkatee yooyu la kàddu moom moo tëggoon defe naa général Fass ak Koli Faye moom Sambay Fall nee na nag li tax mu bàyyi ci li nga xamante ne bii mooy kuréel googu kuréel googu lëkkale euh, promoteurs yi nekk ci réew mi yenn promoteurs yi nekk ci réew mi sax laay wax nee na li tax mu bàyyi mooy que gisul boppam ci li nga xam ne moom mooy kuréel gi ndax événement boobu nga xam ne moom la am foofu ci arène national gisut benn promoteur ba nga xamante ne bi ñëw na jàppale ko yaa ko wax sànq ki leen jiite di Pa Abdou Fall ñëw na fa mais dafa ñëw rek def flash dafa ñëw rek def juux juxeet te nag nee na li mu xam mooy ay nit bu ñuy ànd dañuy jàppalante kon daal moom nee na day génn ci association boobu dem xooli feneen. teg na ci nag nee na kii di Kandji mooy Kandji production. Kandji waaw moom dong la gis. te jour journée boobu te noonu nag Moussa Ndoye Zos publicité. comme combat boobu nag nga xam ne amateur yi ñëpp a ngi koy laaj ñu laaj ban promoteur mooy daal tëgg choc boobu Mbaye Babacar. gannaaw ba Zoss toogee ay at yu bëri ne retraité na bàyyi na fi mu nii nag dafa solaat xaftaanam te kan ngembam na dafa bëgg a ci làmb ji bëri suñu papa Gaston Mbengue depuis lors mu doon ko wutal adversaire ba nga xamante ne bii moom la war a bëreel mais fi mu toll nii Moussa Ndoye barki démb gis nañ mu def sorti nee na bëgg na bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy Zoss. kon combat boobu amateur yu baree baree bari bëgg nañ ko te ñu ngi koy xaar ñu gis sos jógee nag ci li nga xamante ne bii moom mooy ay defet gannaaw ba ko ba ko guy gi daanee ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine daan ko Ama Baldé daan ko te daan ko mu ne nag dafa bëgg ñëwaat wanewaat boppam ci làmb ji ndax li mu yëg ci boppam nee na jeexalagul. jeexalagul du ma naan café. du ma naan ataaya sama papa boobu la ci la ñuy dem nag Ibou Ndiaye Obali signe son retour à Dakar. démb nag fee ca terrain gaal gi. Mm. moo ne nekkoon premier ndamam fii ci Dakar Ndiaye Diagne Diop. combat bu bëri coow la nag Ndeye Mbacke ndax Ibou Ndiaye Obli dafa bëri ak Caaka Fay ci biir tournoi bi eh, ñu jox Obli victoire bi Caaka dugal recours bi mu dugalee recours même pas 10 minutes recours bi génn boobu sax fekk na nit ñu bari ñibbi ci làmb ji bi recours bi génnee ci la ñu jëlaat ndam li. delloo ko ki nga xamante ne bii moom mooy Caaka Fay kon mën nañu wax ne tournoi boobu amoon ci terrain gi. Thiaka Faye moo ko jël Thiaka Faye ko jël ci diggante kon ba léegi Ibou Ndiaye Obali amagul ndam mën nañ ne fii ci Dakar Ndiaye jël jóg ca noonu nag fee kalom xale baa ko jëlati Doudou Sané moo ko jël raw gàddu nga Mbaye waaw Doudou Sané moom moo jël foofu ca kalom di dëkk ba nga xamante ni bii dëkku làmb la Doudou Sané nag euh, mu ngi daan ki nga xam ne moom mooy euh, ordinateur la daan ci final bi ordinateur ñu naan ko moo du fay mais demi-finale yi amoon nañ ki nga xamante ne bii moom mooy Doudou Sané ak moom Mamadou Pouy ñu naan ko Liwi Thior waaw Liwi Thior deuxième demi-finale bii amoon nañ ki nga xamante ne bii moom mooy du fay ordinateur ak ki nga xamante ne bii moom mooy Mamadou Faye ordinateur ak euh, Djibi Dia ñoom ñu naan bëre beneen demi finale ordinateur daan ko Doudou Sané ak ordinateur daje final Doudou Sané daan ko Doudou Sané nag daan la du gàcce ndax xale la am na doole mën naa bëre te gëm na li muy def Doudou Sané gannaaw ba mu jëlee tournoi boobu amoon kalom euh, amoon na ci poosam li nga xamante ne bii moom mooy cent quarante mille francs téeméeri junne ak juróom ñetti junne ki nga xam ne moom mooy moo euh, Modou fay ordinateur amoon na ñeent fukki jun juróom fukki junne ak ñeent loolu la yóbbaale woon gannaaw ba ko Doudou Sané te noonu nag journal les arènes lañ dem les arènes la muy xamle ginnaaw ba sos ne day dellusiwaat Batista ne day dellusiwaat. Batika Batika. Mhm. sama xaritu boobu boobu borom dëgg la. neen day dellusiwaat waaye kii di Boy Naar nag mu ngay xam ne ci journal bi naan Balla Gaye numéro 2 ak ma dellusiwaat ci làmb la ñuy def nag fu mu dellusiwaat ñoom ñoo ko xam. waaw nee na dafa bëgg a dellusiwaat gannaaw loolu la wax na dafa bëgg nee na. Balla Gaye ak ak ak Gaston bëgg nañ mu dellusiwaat xam nga ne Boy Naar ma nga ma nga France. xaritu Balla Gaye 2 te nee na bëgg na tamit su Balla Gaye di ñëw mu ànd ak moom ñëw gunge ko ci làmb ji euh, ànd ak moom ci làmb ji ba làmb làmb ji jeex tàkk nee na bëgg na daal fi mu toll nii nee na Gaston woo digganteem ak Jos mais nee na Gaston waxal ak Jos ba mu d'accord bu fekkente ni bi Jos d'accord na man dinaa la wax ki ngay waxal foofu soo dégg moom nga taxawal combat bi ma jëflante ak Jos waaw gars yi nag nu ñu toppee sama papa ji nag laa bëgg a xam. ak du naan café loolu moo tax. <laughs> sama papa bëri nga bës ñëwaatal. sama xarit la nag Jos maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom Parcelles Assainies euh, day léegi daa mel ni entrepreneur la wala politicien la. transitaire la. nañu dem journal record journal record nag la muy xam ne ci ci ci biir journal bàyyi sama papa waaye. CNG nag mu ngi organiser journée sensibilisation de la commission commission médicale. Hmm. lañ cey bëgg nag mooy. li nga xam te ne mooy mort subite yi am ci làmb ji moom lañ bëgg a éviter. Mm. traumatisme dopage. Mm. fa mu amee nag mooy le 24 juillet incha allah Mbaye Babacar. incha allah waa CNG ànd ci ak commission médicale bi nga xamante ne bii ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci biir CNG ñoom ñoo fas yéene amal boobu les journées incha allah bu ci yàlla àndee le 24. dafa naa arène national lañ koy amale di ci woo ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngu ci làmb rek lañ fa fas yéene waxtaane mooy naka la ñuy def. ba fàggandiku li nga xamante ne bii moom mooy euh, di nekk ci biir compétition ba daanu mën ba daanu jëlee fa li nga xamante ne bii moom mooy ñàkk sa bakkan naka ngay def ba éviter lu mel noonu mu mel noonu mu mel ni lu mel noonu daloon nag ki nga xam ne moom mooy foowee ci football. Euh, waa CNG nag loolu la ñuy waxtaanee ngir moo fàggandiku ko beneen point bi fas yéene fa fas yéene nañ fa waxtaane li nga xamante ne bii mooy euh, naka ngay def ba. su naka ngay def ba moytu ñu dóor la ba nga tàggoog sa sago ci biir làmb ji maanaam ñu lay dóor ba nga tàggoog sa sago ni nga ko waxee traumatisme boo dootoo ànd ak sa sago ci biir làmb ji fas yéene nañ faa waxtaane tamit li nga xamante ne bii moom mooy wàllu dopage mooy di jëfandikoo li nga xamante ne bii dalay dalay da lay xabtal da day tax dootoo ànd ak sa sago day tax soo mënee soo waree def benn def ñaar wala nga def ñett te loolu boo paree après compétition bi lay andi ay conséquence ci sa wér-gu-yaram ñetti point yooyu lan fa fas yéenee waxtaane ki ko fas yéenee amal nag moom mooy Thierno Abbas Ka moo fas yéenee jiite waxtaan moom nga xamante ne bii moom la ñuy amal foofu ca arène nationale. mu nekk lu am importance vraiment euh, initiative boobu dañ am na solo trop ñu ci ñu koy saluer mm-hmm. di ci jaajëfal waa seen ndax euh, mbir boo ko jiitee chaque jour da ngaa war a xool lu koy gën a jëmee kanam. puis da ngaa war a càmbar ñi nga xamante ne bii ñoo ci nekk nga gën leen a xamale ak li nga xam ne moom la ñuy def muy boobu les sport muy noonu nag dama ko jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar di kontaan ci moom la ngi tàggatoo lu moo nekkoon li gën a fa si xibaaru làmb xanaa jaajëfal ñëpp di leen daje incha allah suba ak jàmm wante di jaajëfal sama rakk ji sama xarit baar Baara Jonn Jonn may sa waali borom Fall création le grand maître tailleur nekk fële ca euh, Diourbel xale boobu nga xamante ne bii macha allah nee naa ko bande ciseau la boo ko gisee nag da nga naan du wax mais noonu la saay noonu la bandee ci ñaw dafa mën a ñaw macha allah sama yére yu bari may sol moo ma koy ñawal jonn may sa waale lay ziar yàlla na sa jàmm yàgg. muy noonu dama di bëggee bu baax di kontaan ci ah, waaye damay bëggee rek borom Mermoz Billo Fall ah la nouvelle maman nan ko guddal fan sa doom gudd fan. séeri ki nga xamante ne mooy Pape Malick saw damay kontaan ci yéen bu baax a baax ah doom bi nga xam ne mooy yaa aji maman aji damay bég ci yow waaye sama parents yooyu Billo Fall Malick Sow Poula Diir damay bég ci yoon leen ñaanal jàmm ju bari gudd fan ak seen doom ji li ngeen bëgg ci moom yéen a ko xam yàlla ngeen fekkee njëriñam ñu fekkee njëriñam ñun ñëpp ah kooku sama rakk boobu la man lañ ko magalee mbay baaba ga damay bég ci moom xam naa ne ngénte ba la 14 du yomb incha allah dama leen jox rendez-vous ëllëg incha allah ci Leewtoo TV bëreeg moom léegi ñu ñoom Tapha Tine attention. ñaar Sa Thiès xeex nañu ñoom na ko mot na ko wala. ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ñaar daan na